administration bi justement la ñuy dalal ndax moom dafa daal di euh, proposer ay coppite yoo xam ni yaakaar na ne bu ñu ko ci indee yëf dina gën a baax euh, su jàlloo ñu ngi lay nuyu am te dalal la ci Demb ak Tay. waaw maa ngi lay maa ngi lay nuyu faatu soxna faatu di la di la sant di sant waa Rewmi FM nga xam ni macha allah rajo de qualité la ak euh, même seen télévision bi. yéen yéen a ngi ci li nga xam ne daal mooy mooy mooy mooy illa réew mi maanaam mooy li nga xam ni moom la réew mi jànkonteel pour mën a jëm kanam te loolu defe naa ni mooy di am solo ci même bépp fànn waaye raw na ci wàllu communication mm-hmm. donc maa ngi leen ci gërëm mm-hmm. et di leen ci sant léegi nag euh, li nga ma laaj et turu émission bi sax wax na ko mm-hmm. parce que boo bëggee def euh, defar ëllëg mu baax et da bañ a fàtte démb te nga saytu tey pour mën a xam fi ngi jëm ëllëg donc ñett yooyu foog nga leen di lëkkale mbirum gerte bi nag rawatina ci ndax euh, réew mi gis ngeen ni mosul deme nii demewul woon nii ca jamono waaye gis nañ ni depuis quasiment à partir de deux mille huit deux mille neuf et surtout deux mille Euh, ci la réew mi jànkonteel jafe-jafe yoo xam ni moo doon baykat yi bu ñu bayee ba pare am seen gerte et am jafe-jafe pour jaay ko jafe-jafe bi nag pour jaay ko li ko indi woon mooy e et Sonacos dañ ko privatiser woon mu nekk su ne Suneor 2006 naa fàttewu leen ko et capacité ya mu amoon Sonacos ca jamono amoon na ba presque huit cent à neuf cent mille tonnes de capacité de stockage et Sonacos dem ba daanaka diggante deux cent à trois cent mille tonnes la amoon et amatul koppar yu doy pour mën jënd gerte gi yëpp et OPS yi am doole coopérative yi fi nekkoon doon jàppale askan wi daanaka ñu faag faagaagal nga xam ni eh, daanaka OPS ñoo nekkoon ci àll bi eh, di lëmbe et eh, Sonacos la muy jënd bu demee bu baree ba bare du weesu deux cent mille tonnes booba ñu ngi ci diggante sept cent huit cent mille tonnes nga xam ne la ca des yëpp day nekk ci loxo baykat yi loolu nag indi woon li ñuy wax mbappat indi woon li ñuy wax bon impayé defe naa kenn fàttewu ko indi njëg bi ñu daan wax ni mooy cent soixante cinq nit ñi di jëndee diggante cent franc ak cent cinquante suñu gisee sax ñu ko jënd kon nag loolu yëpp li ko waraloon eh, moo indi bi ñu demee ba 2010 président Ablaye Wade moo fi nekkoon jël un décret ni léegi eh, eh, mën nañu jaayi gerte. bi nga xam ni moom lañ daan jaay eh, huile huileries yi mën nañ ko jaay bitim réew particulièrement Chine waaw donc euh, defe naa mooy décret 2010 15 waaw defe naa ni décret boobu la mu def ubbeeku boobu bañ ko defee léegi ñu door li ñuy wax exportation graines yi foofu la foofu la soxee ko waaye nag boo koy seet ca démb la ko jur mooy privatisation yi nga xam ni dugaloon nañ ci réew mi parce que Sonacos képp moo fi nekkoon di jënd gerte et amoon nag loxo boo xam ni ñu ngi ko tuddee woon Sonagraine Sonagraine d'ailleurs ëppoon nit ci Sonacos. entité la woon ci Sonacos maanaam filiale la woon ci biir Sonacos. nga xam ni dafa amoon directeur général. bien que filiale xam nga filial mooy kuréel boo xam ni. Euh, ci wàllu yoon dafay nekk dafa am dafa moom boppam waaye nag euh, ki nga xam ni moo ci ëpp capital muy sonakos daanaka presque moo ko moom waaw donc muy filial e ñu yeewu suba daal ni daal Sonacos door na am ay perte que mu day indi jafe-jafe donc léegi daal il faut que njaay ak jëndum gerte bi ñu libéraliser ko maanaam ñu bàyyi daal ñi nga xam ni ñooy liggéeyal seen bopp ñu def njaay primaire boobu nga xam ni da ngay bu baykat yi bayee ba pare ñu mel na OPS yi ak coopérative yi ñu dem jënd ko après eh, huiliers yi ñoom toog seen buntu usine ñu indil leen gerte loolu nag moo jur li ñuy wax l'accord cadre bi nga xam ne diggante FMI banque mondiale union européenne ak gouvernement du Sénégal ak kuréel bi ñuy wax tey CENIA muy commité national interprofessionnel de l' agriculture ñoo ko signé woon accord cadre boobu lu mu waxoon mooy léegi et kuréel yi nga xam ne ñooy OPS yi ak coopérative yi ñooy jënd au niveau primaire maanaam ñooy jënd ci baykat bi indi ko si usine bi accord cadre boobu moo indi système caro usine accord cadre boobu et moom moo indi njëgu gerte gouvernement dootu ko fixeeti waaye CNIA nga xam ni moo lëkkalee mbooleem ñee yëngatu ci gerte ci producteurs yi huiliers yi OPS yi transporteurs yi et cetera et cetera ñoom ñooy daje am modèle boo xam ne dañ ko d'accord nag tubaab yi mais d'accord boobu sax da nga naan xanaa dictat bi ñu daan wax maanaam. ñu luñ leen forcé luñ leen forcé ba réew mi di dox ci loolu loolu nag. jaxasoog salfaañoo boobu am ba indi ñu supprimer maanaam ñu dindi Sonagraines tas ko ci euh, euh, deux mille deux mille deux mille un bañ ko tasee moo jur euh, safaan yooyu nga xam ni moo dem ba à partir de deux mille cinq ba presque ay deux mille dix lu mel na bon MPE mënoon lu samp tànkam ci réew mi ak mbappat kon nag bu ñu saytoo ci démb. loolu moo ko indiwoon moo waral nag et parce que bi ñu fexee accord cadre boobu am ñu def loolu dindi Sonagraines waaye ñoom ñëpp xamoon nañu seen bët ci fexe ba nu ñu jëlee Sonacos nga xam ne nguur moo ko moom ñëpp a ko bokk ñu jox ko ay jàmbur ay privé loolu moo dikk en 2005 ba en 2006 ñu jaay ko groupe Advance sonakos ci njëg bu jaaduwul et moo loolu ñu mujj soppar ñu turu Sonacos def ko Suneor. Mm. mooy Abbas Jaber. voilà muy Abbas Jaber ak le groupe Advance. Mm. ad Abbas Jaber nag lañ ci gën a xam parce que ah. moom moo doon moo doon seen représentant fii ci réew mi. loolu jur la mu jor ba gis ngeen ni eh, bi président Macky Sall ñëwee eh, ba mu ko saytoo ba saytu ko loolu di nekk mu ne moom non seulement bëgg na ñëw eh, fexe ba njëgu gerte gi nekk njëg boo xam ne njëg bu baax la. fexe ba mbappat ak bon impayé mu jóge ci réew mi fexe ba semence yu baax am pour que filière arachidière bi jotaat au moins un million de tonnes fexe ba li ñuy exporté xëy na bu bare ba bare mu nekk cent cinquante mille tonnes kooku nag dafa laajoon saytuwaat euh, filière bi yëpp gerte et seetaat ko ba loolu nag moo jur un peu yi nga xam ni moom ngay wax ci wàllu réforme ak yu mel noonu waaw. Mhm. dinañ ci ñëw waaye bala ñu cay egg euh, yàgg nga ci administration euh, nekkoon nga itam conseil technique ca ministère de l' agriculture euh, tey nga jiite club Sénégal émergent di saytu luy jëmale réew mi kanam justement ñu bugg a xam filière gerte mbayum gerte googu ban place la am ci koom-koomu réew mu mel ni Sénégal. waaw dañ maa ngi lay remercier effectivement ministère agriculture xam nga man. ci sama formation de euh, inspecteur de la coopération la maanaam mooy ñooñ nga xam ni dañ leen doon former ca ENAM nga xam ni bu ñu génnee ci wàllu coopérative ak wàllu mbay surtout la ñuy jublu donc euh, sama formation may na ma ko yàlla dimbale ma ma def yeneen formation ci wàllu Israël ci wàllu France ci wàllu euh, fu mel ne en Italie ba nga xam ne léegi boo may presque caractériser da naan kii expert la en économie parce que wàllu mbay ak wàllu koom-koom ci ci ci ci yooyu laa boole léegi nag loolu nga ma laaj ci wàllu euh, ci wàllu euh, gerte place bi mu am ci Sénégal d'ailleurs wax naa ko bërki démb ci benn groupe bu ñu doon euh, exposé bu ma doon def ci benn groupe bu mag ci réew mi Eh, ñenn ñi daal ni eh, est-ce que Sénégal mënul bàyyi gerte. xam nga ah, question bi boo ah, ah, na feneen sax fu koy waxee. ci gerte gi rek di bay. voilà xam nga xam nga kooku eh, soo ko question bi nga wax boo ko waxaatee neneen loolu rek lay indi lu tax Sénégal mënul génn ci gerte. lu tax lu Sénégal ñu wax ji wax ji yëpp gerte gerte gerte gerte gerte gerte. ma ni leen daal Sénégal tey ji su waroon am ñaareelu tur dama ragal ni gerte lay tudd. waaw <laughs> xam nga loolu mooy dafa mel ne nga ni France bàyyil bay euh, blé bàyyil bay bay pombiteer mm. nga dem ci américain yi ni leen bàyyi leen bàyyi leen maïs bàyyi leen blé bàyyi leen lu mel na soja mm. réew mu nekk dafa am loo xam ni yàlla def ko ko may moom la économiste yi di wax et les avantages comparatifs maanaam li nga xam ni réew mi def ko am mu wuuteeg yeneen réew yi te buñ ci jàmmaarloo réew mi daan ko ci loolu réew male aussi am na moom tamit loo xam ni ca la rawe Sénégal am jul Sénégal amul nga xam ni aussi Sénégal bu ko soxlaa ñoom ñu war a mën di def li ñuy wax échange muy commerce beneen bi boo ko jëlee sax ci yoon bu lu gën a yomb ci li gerte représenté ci réew mi tey jii soo dindi woon gerte ci réew mi xam nga li ñuy wax élevage mooy càmm ak yar jur xeet bu mu mënti doon li ci ëpp ngooñ ak ràkkal ci lay jóge donc xam nga secteur boobu bu fi gerte jógee daanaka day màbb waxuma la nag euh, nit ñi li ñuy lekk waaw xam nga boo fa bëggee jële tiga dege jë jële fii maafe mhm. jële fi gerte caaf jële fii ngurbaan jële fi baxalu saalum jële fi yooyu yëpp xam nga réew mi la fi jële fi aussi ngalax waaw jële fi laaxu ñun waa ndar yi ñoo koy wax laaxu ñun di jóob yéen ngeen koy wax <laughs> laaxu natari xam nga yooyu boo ko génnee ci réew mi dana day waar de wax waxuma la nag dawlin mhm. dawlin ah dawlin de bu amul ceebu jën du am. waaw donc nag euh, ak cere. ak yeneen ci topp euh, dawlinu segal daanaka àll bi li ci ëpp moom lañuy dunde ak ak boole ci nag boo feebaree léeg-léeg ñu ni ay eh, indi diw leen ko dawlin bu sedd. kooku defe naa ni ñun ñi xam nañu maam yi mu doon faje mm-hmm. ak yeneen ak yeneen. kon nag euh, gerte dafa nekk loo xam ne dafa am solo ci réew mi daanaka reenu réew mi ci wàllu dund. Mm-hmm. Euh, gerte ci la bokk kon nag nit dafa war moytu mel na ninki nànka xam nga ninki nànka mooy koo xam mooy kan mooy koo xam ne bu tabaxee ba mu jóg mu màbbal ko dem di tabaxaat leneen bu demee ba jógaat mu màbbal ko tabaxaat leneen xam nga kooku dara du fa am bu yàggee et defe naa ni ki gën def nag expérience su loolu mooy président Ablaye Wade parce que ba mu nekkee ci opposition dem na ba mu jigi sax naan ba mu ñëwee au pouvoir ni daf fi jëli gerte waaye defe naa ni ba mu defee ñaari at def ko ñett e defe naa ni génn na ca loolu génn ba nag li koy waral mooy lii ma la wax ci wàllu koom-koom mais aussi génn ba sax li ko waral mooy ci wàllu politique ak social parce que ñi ëpp ci réew bi ci gerte la ñuy yëngatu parce que tey jii bu ñu la waxee ñee dund ci gerte di ko bay di ci dund ak di ci kii daanaka euh, biñ ko xaymaa euh, gën jaa neew nekk nañ diggante ñeenti million jëm juróom-ñetti million ah nit waaw ñee ñee bay gerte mhm. ñi cee dund ah, ñi cee daan seen doole voilà voilà voilà voilà voilà donc euh, xam nga kooku doy na waar ak rax rax dol nag li mu nekk ci koom-koom mhm. ba daan nañu wax euh, Sénégal daal mooy réew mi nga xam ne bu gerte doxee lépp dox voilà kooku nag bi président Macky Sall wax ñëw moom wane na yoon wi nee na gerte suñu cosaan la lu am solo la ci réew mi da nga koy gën a dëgëral gën ko yaatal waaye nag fexe ba yeneen fànni mbay lu mel na ceeb nga xam ne moo ëpp liñ ñu koy jëfandikoo mm-hmm. wax auto suffisance riz lu mel na euh, produit horticole yi nga xam ne mooy lu jum ak fruit yu mel noonu nga fexe aussi ba mu gën dëgër nga fexe ba céréales yi mu gën a dëgër nga fexe ba sésame ak yu mel noonu ak yeneen xeetu mbay nga développé ko développé à côté élevage bi defar kii mm-hmm. donc xam nga booy doxee fukki tànk yaay gën a jafe daaneel mm-hmm. ki nga xam ne benn tànk lay doxee waaye nag benn tànk am na tànk yoo xam ne dafa war dëgër ci réew donc mbiru gerte daal su ma koy wax ci tënk tuuti en fait ci misaal noonu la joxe bañ sax dugg ci ay chiffres mhm. mais li nga xam ne rek eh, xel mu rafet nangu na ko waaw leer na nañ macha allah alors euh, monsieur Diallo Youssou Diallo ñu ñëw nag ci euh, li nga xam ni moom mooy campagne gi ak Sonacos euh, ginnaaw bi ñu génnee ci privatisation bi ndax réewum Sénégal jëndaat na ko campagne yi ñu ngi wéy Sonacos euh, di jàmmarloo ak ay wujju ni ma ko waxee ci ndoxteel gi wujju yooyu di ay chinois ñoom bu ñu nee ñaar fukk la ñuy jaayee ñoom ñëw di fay fanweer ba ñeent fukk loolu nag jural euh, kër gi jafe-jafe yow yaay président conseil d'administration bi jafe-jafe yooya euh, kañ la tàmbali ak lan moo ko waral yéen ci seen boor ndax ñàkk mën a fay prix bi ñële di fay la wala daal ci mbirum organisation la moo tax xëy na li ngeen di yootu ci yenn campagne yi du ngeen ci mën na jot bala ñuy ñëw ñëw ci coppite yi nga bëgg ñu amal ka waaw foofu dama damay bëgg tuuti dellu ci Sonacos bi que bi que président Macky Sall di jëlaat ci 2015 ñun mu nommé ñu en mai 2016 booba Sonacos euh, entreprise la woon boo xam ni daanaka dafa daan woon maanaam bu ñu ko doon wax ci tubaab mooy li ñuy wax fayit maanaam mooy entreprise boo xam ni mënatul fay ay borom mootul fay ay ay solde mootul fay courant mootul fay ndox mootul jënd gerte et cetera Sonacos suna Suneor parce que boobu moom la doon euh, li mu mujj jënd ci gerte ci campagne 2015 euh, 2016 mille tonnes la maanaam ci entreprise boo xam ni mën na jënd ba 300000 tonnes jëndoon na sax benn année deux 211000 ton def naa en 2010 2011 xam nga kooku daan nawet. Mhm. demoon na ba dëwlin bi ñuy jaay ci réew mi euh, téeméer yooyu jël juróom-ñett fukk yi ci euh, Sonacos Suneor la doon jóge mu dem ba Suneor di jaayatul ci réew mi lu may cent quarante 446 tonnes. seen dëwlin kay gisoon ko sax day jafe. maanaam mu tekki ni euh, demoon na ba nekk presque moins de 2 pour cent des part de marché ci dëwlin ci réew mi amoon. ay fonds propres yoo xam ni dañu négatif de plus de quarante milliards am ay bor yu ëpp soixante milliards am ay parties cumulées yoo xam ne mën na soixante six milliards solde yi euh, euh, bi fi suna war laata jël ci Sonacos nguur gi moo ko doon fay pour une entreprise privée donc xam nga kooku deewoon nawet ay eh, boo rax ci ci dolli <laughs> uh-huh. rax ci dolli ma docteur la bi ci mujj juróomi usines yi ñu am ci réew mi muy Dakar muy Ziguinchor muy Diourbel muy Kaolack muy Louga yëpp dañu taxawoon liggéeyatuñu voilà voilà fii la fii la fii la suna war toll woon bi ko président Macky Sall yi jëlaatee def ko ci gafaka réew mi et ñu góorgóorlu jéem fexe d'abord ci wàllu finance ñu euh, suqaliwaat ko usines yi nga xam ne dañ taxawoon ñu redémarrer leen fournisseurs yi nga xam ne mënuñu leen fay ak surtout solde yi ñu fexe ba bi ñu laata def at ci bopp Sonacos ñu kooku at entreprise bi ci boppam doon na fay moom ci boppam ay ay soldats. état moo ci dugal xaalis. maanaam foofu dañu conte d' abord ci exploitation parce que état dugalu ci xaalis état li mu def mooy maanaam dafa jël bor yi nga xam ne Sonacos moom la yore woon. Hmm. moom mu jël mu waaw su ne woor Euh, léegi puisque nekk na Sonacos parce que dañ ko deux mille 2017 lañ ko tuddee Sonacos état bi euh, def li ñuy wax maanaam euh, reprise de créance maanaam bor yenn lenn ci bor yi Sonacos amoon mu toll ci lu ëpp 60 milliards nguur gi jëlee ko ci boppam nga xam ni léegi sonakos dana mën am capacité mën dem ci banque yi mën a def ay transactions et yàlla dogal aussi ñoo am ñetti campagne yoo xam ni jënd nañ ci lu presque lu jege trois cent cinquante mille tonnes gerte. mi nga xam ne entreprise bu boobu ba léegi. et mi ngi doxal boppam état fayatul soldam defatul yu mel noonu. voilà donc nag bu ñu jógee foofu. et dawlin aussi dellusiwaat. gis nga tey ji part de marché dawlin presque li ëpp de presque moins deux pour cent deux pour cent. Mm. Sonacos léegi mu ngi ci plus de vingt cinq pour cent de part de marché. ci ci dawlin bi. voilà donc léegi euh, ñu def ñu def tuuti parenthèse bala ñuy ñëw ci ci njëndum gerte gi foncier bi tam na fi tuuti coow ñu naan suufal Sonacos yi dañu ko doon bëgg a jaay ak jaay nañu ko jaayuñu ko loola nu mu demee woon ak fu mu toll tey. kooku moom dañ ci d'abord euh, remercier sargal euh, état sénégalais surtout fonctionnaires yi ci nekkoon et surtout à l'époque ki nekkoon ministre des finances muy Abdoulaye Diop parce que ba mu gisee ni ñu ngi jaay Sonacos mënatu ci dara. fexe na ba ci clause yi ñuy signé ak euh, groupe Advance mu def ci une clause boo xam ne dafa wane fii fukki at ak ñaar suufu Sonacos kenn mënu ko jaay. verrouillé foofa. voilà xam nga yàlla dogal 2005 la woon. fukki at ak ñaar boo ko yokkee ci 2005 day nekk 2017. Mhm. Macky Sall mi ngi jëndaat Sonacos en 2005. 2015 donc mu wol na ni patriotisme. euh, fonctionnaires sénégalais yi et particulièrement le ministre Ablaye Diop et des hauts cadres du ministère des finances il faut saluer vraiment seen patriotisme. parce que bu ko deful woon. adverse mën na ñëw jaay ko jël xaalis ba def ci poosam parce ah, xoolee ni waa ji doon doxalee. waa ji parce que xam nga entreprise agro industrielle bu mel na ne Sonacos soo koy jaay da nga koy jaay koo xam ni agro industriel la mm. maanaam mi ngi ci fànnu mbay. ci milieu bi xam na mi ngi ci waa fànnu mbay ak industrie yi nga xam ne ñoo taxaw ci mbay. mën na doxal entreprise mel noonu waaye ki ñu ko ñi ko ñi ñu ko jaayoon ay trader yooyu lañu maanaam ay commerçant ñoo xam ne seen liggéey mooy jaay mooy jënd jaayaat. wut xaalis. voilà ci léegi nag bi ñu gisee même stratégie bi mu doon def moo doon li ñuy wax ci wolof ci tubaab euh, banqueroute frauduleuse maanaam da nga yore entreprise euh, maison maire bi signé ay clause yoo xam ni ak Sonacos boo xam ni ci. li ñuy jënd ci dëwlin ci bitim réew ñoom ñoo koy jënd li ñuy jaay ci dëwlin ci bitim réew ñoom ñoo koy jaay diggante boobu gis nañu tonne bu ñu def ci transaction ñoom dinañ ci gañe lu toll ci quatre-vingts dollars au détriment de de entreprise Sonacos bi ko banque mondiale calculé ci durée bi fii euh, su ne war nekk diggante 2006 jàpp 2015 loolu ëpp na 9 milliards. voilà donc moo neen dañ doon piller Sonacos euh, Suneor beneen bi mooy dañuy wut ay fournisseurs yoo xam ni ci ñoom la ñuy jënd et puis ci la ñuy endetté entreprise bi moo waral dette bu bare boobu nga xam ni léegi Sonacos day fay di perte xaalis mais fournisseurs yooyu ñoom dañuy am xaalis en fait ñooñu liñ doon def moo doon loolu léegi nag heureusement bi ñu protéger suuf si parce que ñoom li ñu bëggoon en fait mooy suuf si bi ñu demee nag ba léegi ñu ni léegi nu ñuy def pour problème bi dañ ni léegi nañu déclarer euh, Suneor en faillite xam nga bu ñu ko déclarer Suneor en faillite léegi il faut que Suneor fay ay borom mm-hmm. léegi nag pour mu fay borom yi ñu ne waaw léegi nañu jaay suuf yi après fonctionnaire ni déedéet mm-hmm. suuf si clause bi ñu signé woon ni fii ak fukki at ak ñaar kenn mënu ko jaay kenn jaay suuf si donc bañ ko wàccee gis ni ay perte kese mm-hmm. donc ñoom li ñu doon wut mooy et comme commerçant bu nekk soo jëndee da ngay bëgg jëndee benn njëg bu yé bu mhm. nga jaayee ko njëg bu gën boo xam ni ëllëg ak si biir am li nga xam ne mooy marge mhm. et marge boobu nag ñoom fi ñu ko laxasoon moo doon euh, suufu Sonacos parce que Sonacos tey jii boo xaymaa suufam rien que li ñu am ci domaine portuaire rek seize hectares cinq cent la buñ ko xaymaa même ci cinq cent mille francs euh, euh, le mètre carré dina ëpp cent milliards mais alhamdulilahi rabbil alamina et patriotes sénégalais yooyu def nañ la ñu def et bi président Macky Sall ñëwee sax au début bi ñu xalaatee yan pexe la ñuy def pour suqali Sonacos xalaatoon nañu quand même jaay ci lenn lu ma toll ci 4 hectares waaye ba ñu demee ba ci biir gis nañ ni question bi dafa sensible mm-hmm. mujj gi ci ndigalu président ñu bàyyi loolu mujj gi suuf soosu dañ ko luye léegi at mu nekk dina indi ay milliards yoo xam ne day dugg ci gafaka Sonacos te ba pare euh, suuf soos nekk ci ci ci kiwam siège bi ken dugalu ko woon ci patrimoine Sonacos te siège bi xam nga ni au moins lu mu néew néew jar na lu ëpp ñetti milliards ah. waaw yooyu yëpp dañ ko dugalaat ki donc dañ ko restructurer financièrement hmm. recapitaliser société bi nga xam ni Sonacos tey ji nekk na société boo xam ni capitalam euh, xëy na wàññeeku na tuuti parce que 22 milliards 3 la woon hmm. léegi mi ngi ci 20 milliards 3 mais ay bilan Sonacos ak ay comptam tey jii Euh, maanaam gën na wér na nga xam ni banque bu ñu dem eh, bëgg fa euh, leb xaalis banque boobu dana dana am confiance mën ñu mën ñu lebal mm-hmm. rax ci dooli nag euh, am na ay soppan yoo xam ni eh, jot nañ ko indi ba nga xam ni léegi eh, ci wàllu dawlin ci réew mi Sonacos gën na ci am taxawaay usines yi redémarré nañu mm-hmm. am na investissement yoo xam ne sax def nañ ko waaye nag am na lu des parce que tey jii Euh, gerte na doon doxe bu njëkk ak ni muy doxee tey ci àddina si ak ci réew mi bokkul parce que xam nga bu njëkk Sonacos rek moo fi nekkoon moo doon moom kese moo daan jënd gerte kenn rax ko moom kese moo daan jëndi jaay dawlin bitim réew moom kese moo daan jëndi bitim réew dawlin di ko indi fii mais léegi euh, ci njëndum gerte bi mhm. euh, ñu bare ñu ngi jënd ah. rax ci dolli ñi nga xam mbokk si chinois yi nga xam ne ah. moom ngay wax ci wàllu jënd dawlin depuis 2008 presque libéralisé dinañu kii jëndum dawlin nga xam ne léegi opérateur privé yi daanaka ñoo ci ëpp doole. et rax ci dolli aussi ci wàllu euh, njëg ak yu mel noonu gis nga tey jii ni configuration bi demee ba nga xam ni euh, nee nañu nag euh, wolof day wax léeg-léeg niru niru sa baay niru jamono moo ko gën. voilà donc daanaka méngoo méngoo ak méngoo ak jamono. Mm-hmm. donc loolu daal. yu am solo la yoo xam ni eh, war nañ ko defaat léegi nag am na nag yeesal ak soppar ñi yoo xam ne dañ ko war def parce que xam nga tey jii problème bi njëkk ci Sonacos mooy ban taxawaay la Sonacos war am ci jamono yi ñu toll nga xam ni wax naa la soppeeku yi nga xam ni jot naam loolu mooy li jëkk ñaareel ba mooy Sonacos tey jii eh, mënul dund te amul gerte Sonacos gerte moo koy doxal soo amul gerte doo am dawlin su amul gerte doo am ràkkal su amul gerte doo am xaalis. usines yi duñu liggéey. usines liggéey donc euh, dootul mën nekkati nu ñu def ba am gerte ñetteel ba mooy nu Sonacos di def nu Sonacos di def ba mën a fexe ba am matériel boo xam ni dana méngoo ak jamono. na Sonacos di def aussi ba am personnel boo xam ni et aussi dana méngoo ak jamono. donc juróom ba ñeent ba juróomi question yi mooy question yi nga xam tey ji moom la Sonacos jànkoonteel te defe naa président de la république son excellence Macky Sall président Macky Sall nga xam ni man maay président conseil d'administration Sonacos maa ngi koy gërëm di ko sant parce que gis naa taxawaay bi mu am ci réew ci Sonacos d'abord patriotisme am parce que bi muy nangu Sonacos il fallait nga nekk koo xam ni bëgg nga sa réew et aussi euh, kenn du la xoqatal nga ak am taxawaay bu dëgër parce que boobu banque mondiale d'accordul fonds monétaire d'accordul waa bi d'accord bañ ko jëndee sax ba pare dañ ne woon ah du ñu def acte jaayaatuñ ko privé yi. Mm. yaakaaroon ne mënuñu koo doxal. waaw ak seen ay plan xam nga ñoom ah, ah, booba sax ñun ne nee nañ leen mais yéen yéen woon nañ ko privatiser ko privatiser nañ ko def nañu léegi fukki at ak ñaar dara doxul entreprise bi tombé na en faillite ngeen bëgg ñu jaayaat ko ay privé tey jii kii ko bëgg jaay privé sax benn privé du ko jënd. ndax fi voilà moo tax finalement defe naa ne mujj gi ñu mujj leen yay. Hmm. rax ci dool nag aussi jàppale ba mu jàppale Sonacos ba nga xam ni tey ji eh, mën nañ ko restructurer financièrement parce que loo ëpp eh, juróom-benn fukki milliards eh, nguur gi jël na ko ci ay bor yu nekkoon ci Sonacos. et jàppale woon na ko aussi ci mu am ay financement pour mën a jënd gerte mais aussi surtout tey jii. Eh, wan nañu ay yoon yoo xam ni buñ ko sopparñee Sonacos dina gën amaat taxawaay. donc moom daal vraiment euh, ay la yëwan. Eh, ñu ngi koy gërëm di ko sant ci taxawaay bi mu am et aussi beneen bi mooy nee naa la Sonacos bu amul gerte du am. gis ngeen gerte Macky Sall jëlee na ko ci sept cent mille tonnes de de de de production yóbbu ko ci un million presque huit cent vingt six mille tonnes xam nga kooku jéego yu rëy rëy la donc euh, bu. amoon gerte jafewoon démb tey xëy na ci la gën ñoom parce que tey jii la gerte gën ñoom. tey gerte gën a yomb mais dafa mel ni tey la gën a jafe ci Sonacos ndax daaw euh, objectif yi ngeen fixé woon jotu leen ko woon ren directeur général bi biñ ci mujjee waxtaan ak moom dafa ni euh, xëy na stratégie ngeen di demee du ngeen fësal ñaata ngeen soxla waaye ku ni xam na ne teewaay chinois yi jural na jafe-jafe lool. Sonacos bu weesoo ñeneen ñi ndax Copéol mi ngi fii ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne dañuy liggéey ci gerte gi tey yow lan mooy jafe-jafe bi ak yan coppite nga proposé ngir xëy na yëf yi gën a baax ci yéen. waaw man nag du ma du proposé parce que xam nga euh, ndawal buur ci Sonacos man mii la waaw parce que man maay maay bët ak may daanaka loxo ak gémmiñu président de la république fii ci biir Sonacos loolu la ma wax ba may fal ba may nommé fii ci Sonacos ni ma Sonacos nguur gi moo ko moom te nguur gi ki ñu Sénégalais yi jël fal ko pour mu nekk ci bopp nguur gi man mii la président Macky Sall yow nag man maa la tànn pour nga teewal ma foofu xam nga kooku leer na kon nag ci ndigalu kooku ak gouvernement bi ci lay wéy fii ci biir sonakos et directeurs généraux yi nag buñ leen nomee ñoom ñoo war a doxal entreprise bi ñoo war yilif personnel bi ñoo war a tegu ci yoon yi nga xam ni moom la nguur gi nga xam ne moom moom Sonacos mhm. ca la leen teg di saytu loolu nag di ko taxawe et di ko dëggal loolu un peu mooy li nga xam ni un peu ñun conseil d'administration bi ah, man mi nekk ci bopp bi mhm. euh, en fait ñu koy def léegi nag ci li nga ma laaj effectivement euh, mën na ni gerte tey la gën a bare mais tey la gën a jafe dëgg la et foofu nag la ñu président Macky Sall jox ay tegtal tegtal bu njëkk bi mooy système caro usine ba ñu fi indi woon nga xam ne Sonacos dafay mel na ku ñu jéng mënul génn buntu usine pour jëm wuti gerte dafa ne loolu léegi nañ ko dakkal na Sonacos di dem fa gerte gi nekk et ak ña koy liggéey mu fexe lëkkaloog ñoom muy contractualisation pour mën a am gerte boobu mooy indication bu njëkk pour génn ci jafe-jafe boobu nga wax ñaareel ba mooy aussi bien que Sonacos liggéeyam mooy defar dëwlin mooy defar ràkkal mooy fexe ba réew mi di am di dundee dëwlin bu sell na tegu ci loolu waaye nag na ci rax que jamono ko indi e di jënd aussi gerte di ko mën jaay bitim réew muy exportation graine waaw parce que tey jii aussi boo ko saytoo ci wàllu koom-koom niñ daan def defar euh, dëwlin Euh, huile brute maanaam mooy gerte goo xam ne kenn raffiné dawlin boo xam ne kenn raffiné wu ko di ko jaay bitim réew mm-hmm. loolu léegi amatul rentabilité dañ ciy perte xaalis mm-hmm. kon nag léegi defar gerte goo xam ne dañ koy defar raffiné ko jaay ko ci biir réew mi moo gën a baax ci wàllu koom-koom ci Sonacos que mm-hmm. leneen beneen bi boo ci raxaw doole puisque gerte gën na bare dem nañ ba am un million 800 mille tonnes Sonacos nekk li ñuy wax plateforme d'exportation de graines d'abord euh, ñuy exporter li ñuy wax arachide de bouche maanaam mooy gerte gi ñuy tànn mu rafet ñu defar ko ba nga xam ne nekk ci confiserie yi ak yu kenn xamul bitim réew daf koy soxla lool te dafa am njëg bu baax beneen bi aussi mooy exportation de graines yi puisque moom mi ngi fi foofu nag damay leeral ci wàllu Chine bu fekkee ni bi président Macky Sall ak politique yu rafet yi mu jël moo fi moo indi gerte tey jii euh, nekk lu lu rafet ci réew mi parce que léegi kilo gerte mën na jënd kilo ceeb kilo jeer gerte mën na jënd kilo ciment te bu njëkk eh, kilo gerte mënul woon sa jënd génn wàllu kilo yooyu may tudd li ko waral mooy politique yu baax yu président Macky Sall kii mais aussi accord bi président Macky Sall signé ak Chine ba nga xam ne tey jii Sénégal mooy le premier pays exportateur gerte ci Chine te Chine moo ëpp li muy bay ci gerte dana koy at mu nekk lu ëpp 20 millions gerte aussi mooy le premier consommateur euh, de de produits dérivés de l'arachide huile ak tourteau ak yooyu au monde donc xam nga marché boobu boo fa amee yenn taxawaay. Hmm. moom moo boosté gerte gi ba tey jii ku daawul bay gerte. wala bañoon nga ko bay tey jii dugg nga ci parce que koom-koom noonu la demee. teewul nag yeneen xeetu mbay yi. gis nga ni ñu ni ñu yokkoo en fait ci réew mi donc yaay a une véritable diversification. Hmm. léegi li ñu daan wax bassin arachidier dégg ngeen léegi. Hmm. ñu ngi koy wax bassin agricole. donc. Euh, bu nu ñaari euh, en fait indication yooyu lañ jox bi mu ñu ko joxee nag euh, ma lu matul fukki fan ak juróom woo naa conseil d'administration mu ñu daje. et bi ñu dajee gis nañ ni euh, man sax sama filiale laa doon wax ñu sos ko waaye nag bi ñu xoolee ak ni ñu war demee avec prudence ak tey jii ni secteur bi bindoo nga xam ni dootul rek Sonacos am na yeneen concurrent OPS yi am nañu doole mm-hmm. mais aussi beneen mbir mi mooy Sonagraines ci boppam am na yu ko gàllankooroon ba tax mujj gi et ba ñuy naan tubaab yi poussé ni gouvernement bi na ko tas et dem na ba gouvernement bi amatul woon lay parce que dafa bare woon nit hmm. bare woon ay bare bare woon ay charge ñu ne nag xëy na même bu fekkee ne xëy na ci lu mel noonu lañ jëm hmm. nañu def ndànk waaw demal seen bopp ba ci kanam voilà voilà doxee ba dox xëy na léegi nag au lieu ñu créer filiale ñu ni léegi euh, coordination achat grain bi nekkoon ci biir Sonacos hmm. nañ ko def une direction à chaque à chaque à nga xam ne dafay au lieu mu nekk du nekk filiale. Mm-hmm. dafay mel na lu mel na succursale. xam nga succursale day bokk ci entreprise mais du am une personnalité juridique. mais day nekk une direction boo xam ne dañ koy jotee de moyens propres. Mm-hmm. yoo xam ni dana mën tax léegi ci mbirum dem jëndi gerte ci mbirum aussi fexe na ñuy contractualiser parce que boo buggee contractualiser ak producteurs yi il faut nga jox leen ay semences. il nga jox leen engrais. il faut nga leen di jox loo xam ne dana tax nga fidéliser leen ba nga loolu nga leen di jox bu ñu bayee ba lay jaay kenn yow lay jaay léegi nag bu ñu bayee ak contractualisé contrat boobu ngeen di signé mhm. day tax moom loolu nga ko joxoon ci semence daf la koy delloo ak ak lu mu ci teg mhm. semence yu euh, kii na mu engrais yi ak yooyu demee nu mel noonu ba nga xam ne léegi aussi ci wàllu présence maanaam taxawaay ci terrain bi fépp fu gerte di bare nekk fa Sonacos dana fa am taxawaay soit moom ci boppam wala mu liggéey ak producteurs yi suñu diggante aussi ak OPS dafa jar leeral parce que ñëwuñu fi pour dindi OPS li président lu ñu sant mooy képp nga xam nekk na fi di liggéey ci gerte gi nañu seet diggante yoo xam ne yu jaadu la ñu def ko. opérateur privé yi. opérateur privé foofu nag la ñu wax mooy dañu gis ni at yi yëpp et euh, OPS dañuy signé ay contrat ak Sonacos mais bu gerte gi teewee bu ñu gisee beneen njëg bu gën a baax wala bu ñu yaakaar ne que dañu dem jaay ko foofu alors que nit ki boo signé contrat da nga ko war respecté léegi nag ñu ngi seet nu ñuy xoolewaat contrat yi ba nga xam ni waxtaan ci ak OPS yi ba nga xam ni képp koo xam ne signé nga contrat daa respecté lu mel noonu parce que léeg-léeg contrat yi dañ koy utiliser sax pour dem am xaalis ci banque bi mm. buñ ko amee ba pare dem dem eh, jënd gerte jaay ko feneen te loolu jaaduwul voilà loolu loolu jaaduwul donc loolu bokk na ci li leen doon xañ gerte ndax da ngeen daan toog wéeru ci OPS non ah, ah, wéeru bi sax du woon wéeru mais wax naa la fee sànq ah, ni la euh, euh, système caro usine waaw waaw bi ñu instauré woon ci accord cadre bi moo tënkoon Sonacos mais ñun xamoon nañ ni toog ci usine bi usine yi mais réglé loon suñu problème waaye nag comme que euh, buur moom surtout booy ndawal buur yaa war jëkk sart yi nga xam ne moom la buur tëral yaa ci yaa ci war jëkk tënku mm-hmm. waaye nag ki nga xam ne moo yilif ñëpp muy président de la république Eh, wane na ni loolu nañ ci génn foofu sax d'ailleurs ñu ngi woo CNIA ministère agriculture ministère commerce ak ministère de finance ak ministère yi lëkkaloo ci mbirum gerte yow et ñu daje pour parce que texte yooyu aussi dañ ko war soppi waaw bu ñu ko soppee mooy dindi karo usine bi wala ñu seet nu ñu ko defee noo xam ne dana gën a méngoog jamono et aussi système même euh, fixation prix yeeg question exportation en tout cas daal texte yi war nañ ko saytuwaat yee salaat ko et gën ko méngale ak jamono kooku aussi ci recommandation yi nga xam ni conseil d' administration moom la joxe suñu conseil d' administration bi nga xam ne mujj na léegi nag euh, sant nañ directeur général mu say xool yooyu yëpp proposé ci ay doxalin ci ay tëralin ci ay personnel boo xam ne dana fa nekk aussi ci ay moyens yoo xam ne war nañ ko def ba nga xam ne incha allah campagne bii ñuy ñëw muy campagne 2021 2022 que Sonacos mën a door euh, tegu ci tegtal yooyu nga xam ne moom la président wax surtout ci wàllu jëndum gerte ci campagne bi nag euh, gis nañu ne euh, directeur général sa wàcc na si terrain bi dem si yenn gox yeeg yooyu ndax euh, Sonacos dafa nar yokk li nga xam ne moom la daan jëndee wala li ñu fixé ni prix ngir xëy na campagne yu ren bi mën a dox boo ñu mënee defal le point tolluwaay bi. waaw léegi fi mu nekk nii daanaka Sonacos ci wàllum rek gerte xott mm. Sonacos mi ngi ci presque jot nag jot ah, daanaka àgg na ci quarante mille tonnes. fii mu toll nii alors que daaw euh, nekk ñu woon ci ay 15000 tonnes fii ñu toll. ci lool loolu nag li ko indi daf ay pexe la. Mm. pexe yi nag am na fu ñu yokkee njëg ba nga xam ne tey jii boo demee Sonacos daa fa ëpp lu fekk lu ëpp 100 mm. boo demee Coppeol ak yeneen suñu concurrents yi doo fa fekk fukk camion mm. donc gerte gi mi ngi ñëw macha allah bu baax a baax kooku nag boo ci booreeg li ñu jënd ci gerte kemb. et nga xam ne xëy na dana mat ay vingt cinq à trente mille tonnes. Eh, da nga naan Sonacos daanaka jóge na soixante dix mille tonnes. Eh, ba nga xam ni bi ñu dajee ci conseil d'administration bi aussi révisé waat nañu les ambitions un peu à la baisse. waaw euh, annoncé woon na wàccee njëg li waaw ko conseil d'administration moo ko moo ko moo ko moo ko digal. Eh, woon ko di daal objectif yi fixé leen ko au minimum entre quatre vingt et cent mille tonnes. incha allah rabi bu cat duggul ragal nañ ne xëy na daañ ko dépassé. si si yàlla dafay jàmm. léegi nag muy wane ni en fait que directeur général DER foofu dama ko ci sargal e di ko félicité mais surtout di ko encourager parce que wane na ni en fait euh, am na taxawaay parce que euh, bii sax du du benn bii mooy ñaareel ba ñetteelu tourne bi te léeg-léeg sax du tee bu dara amee fenn mu dem ci terrain bi ak ak ay équipe mm-hmm. mooy na ni gerte da ngay am taxawaay da am taxawaay mais aussi du mbirum bureau déedéet du mbirum bureau <laughs> euh, ci bureau bi ci la waaye nag li ci ëpp mbirum terrain la et aussi aussi dafa laaj euh, ci bataay aussi communication parce que am na jamono xawoon na compliqué euh, ku ci nekk am nga ay wujj te nee nañu ko sa wujj di sang doo set te am na jamono vraiment mel na ni daal dafa mel noonu ay tir groupé mm. ci kaw Sonacos mais personnel bi syndicat yi direction général bi ba ci man mi PCA bi sax léeg ñu interpellé ma man tamit ma dem au front donc euh, ça veut dire que euh, am na taxawaay bu rafet macha allah et yan nañu yàlla gën a dimbale et ragal naa ni daal fi ñu bëgg yóbbu yóbbu Sonacos incha allah mën nañ ko fa yóbbu su soobee suñu borom ak aussi surtout njàppale njiitu réew mi président nga xam ne jàppale bu dëgër la jàppale bu wér la leneen li nag mooy li ma doon wax ci modelu sonakos modèle bi mooy euh, bu njëkk modèle bi ñu amoon maanaam model mooy du dara lu may nan la Sonacos di def ba di nekk entreprise boo xam ne day gañ a xaalis tout perte xaalis loolu mooy modèle ñu saytu jamono bi ñu ko saytoo nag mooy léegi gis nañ ni il faut que ñuy euh, dawlin ji euh, buñ ko buñ ko buñ ko segalee ñu raffiné ko ñu def ko huile raffiné jaay ko ci biir réew def ko nag ay catégorie huile de première catégorie deuxième catégorie nga xam ni euh, parce que dëwlinu gerte dëwlinu borom barke la. waaw voilà mënul yomb. donc mën na am pour borom barke yi mais am yeneen yoo xam ne xëy na mën na nekk yu ay mélange wala yu mel noonu yoo xam ne njëg bi dana gën a. dana gën a woyof. et taaral ko mais aussi jox ko qualité. boo xam ni defe naa ni sax boo koy bitim réew sax boo ko bëggee exporté parce que bi ñu demee foiru Côte d'Ivoire bi muy Sahara ñu bare bi ñu gisee diwlin Sonacos bi wax na ni ñoom il son prêts même jënd ko lu ëpp 3000 francs le litre voilà am na sama benn xarit bu demoon États-Unis mu ne ma gis na euh, litre diwlin muy jar ci benn supermarché ba 30 dollars donc ça veut dire pexe jeexul waaye nag li ñu gën a intéressé mooy marché sénégalais bi beneen bi aussi mooy plateforme d' exportation graine bi ñu fexe ba di jaay arachide de bouche ñu gën ko indiwaat et foofu li directeur général di wax ni eh, dem ba ci vallée bi def culture irriguée ak yooyu xeetu gerte yooyu mën nañu ko def en irrigué parce que seen njëg ci bitim réew dafa baax beneen bi mooy aussi graines yi fexe ba chinois boo xam ne da ngay ñëw fii di di jënd jënd gerte nga jënd ko ci Sonacos parce que ñii fiy ñëw ay baana baana lañu dañuy ñëw jënd gerte ci ñi fi nekk pour dem jaayaat ko yeneen intermédiaire ci Chine ñooy jaay ko usines yi mhm. léegi nag euh, sant nañu directeur général ak suñu ndimbalu ambassadeur ak bureau économique bi nekk en Chine grand groupe chinois yi nekk foofu en Chine mhm. ñu dem am ak ñoom ay contrat nga xam ni képp kuy leen di jaay ci Sonacos ngay jaar wala ñu ëpp ci ñu leen di jaay nga xam ne bu boobaa njëgu gerte fii du jéggi dayo et aussi danañu am contrôle ci qualité gerte bi nga xam ne moom mooy dem parce que Chine Chine accord bi président Macky Sall signé ak ñoom dafa nekk accord bu contraignant ci wàllu qualité surtout qualité phytosanitaire bu bu gerte voilà donc kooku defee naa ne buñ ko bu ñu defee noonu aussi ci wàllum aussi euh, dëwlin ci boppam ci réew mi il faut que arrête boobu defoon blocage des prix 2008 ñu saytuwaat ko seetaat parce que gerte mënuñu ko jël rek bloqué ko parce que boobu nit ñu sonnoon nañu. Mm-hmm. moo tax ñu defoon ko noonu. Euh, seet njëgu déwlin gerte lu mu war jar fii ci réew mi seet aussi gerte gi jóge bitim réew na muy demee parce que wàll boobu aussi fraude bari na ci ah. mbirum gerte. Mm-hmm. mbirum déwlin donc euh, boo nee filière gerte ci réew mi moom ak déwlin ñoo lëkkaloo. voilà parce que njëgu dawlin mooy déterminer euh, ci ci ci mujjantal bi njëgu gerte bay nekk ca ca tool ba donc njëgu gerte sax de niñ koy euh, taxawale war nañ ko xoolaat aussi donc jële ko ci ci la la di jaar ak la ràkkal di jaar euh, sukkandika surtout ci biir réew mi et pour mën a def njëg boo xam ne buñ ko taxawalee dootul sax nekk léegi prix plancher mais day nekk benn prix waaw nga xam ni ñëpp daañu ko respecté parce que li indi aussi un peu euh, jaxasoo bi prix plancher boobu génnu ci voilà voilà parce que njëg boo xam ni mën na di yokk waaye mënul wàññeeku euh, xam nga doy na waar mais bu ñu ne benn prix du yokku du wàññeeku hmm. bu waree yokku ñu daje comme nit ñu ni ñuy def ci système régulation yi bu ñu bu waree ñu ni xëy na njëg bi dafay nekk sur euh, fukki fan ak juróom hmm. bu ñu ko waree soppar ñi ñu dajewaat am na kii de régul kii de structure de régulation mën na nekk CNIA wala beneen structure ñu ñu xool ko au bout de de quinze jours ñu seetaat bu njëg bi waree yokk ñu yokk ko bu ñu ko waree maintenir ñu maintenir ko voilà mën a nekk sur quinze jours mën na nekk sur douze jours mën na nekk parce que bu njëkk njëgu gerte par semaine lañ ko daan déterminer. Ah voilà voilà parce que xam nga dafa am da amoon na maanaam ay jëfin yoo xam ne yu rafet la yu sell la mm. yu jaar yoon yu fi nekkoon mm. et toujours li ma la wax rek. mais euh, nit ñi euh, xamuñu démb. ñun ñi nga xam ne nag ñoo xaw mag ñenn ñi. aussi yàlla def fu ñu toll ñu ngi gëstu ak di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb. Mm. am na loo xam ne dafa dafa yàlla def ñuy may ñu am ci ay information yoo xam ne danañu mën jëriñ suñu liggéey. d'accord am na tam ñu jàpp ne xëy na euh, Sonacos mën naa dem ba dugg ci mbay mi di bayal boppam gerte. de kooku de son kooku moom je crois que pour le moment daal Sonacos mbay dafa am ñu ko war def mm. waaw li ñu président sant xam nga mooy lan. contractualisation avec les producteurs producteurs bi nag mën na nekk euh, les organisations maanaam nit ñi daje lëkkaloo créer ay coopératives ay groupement ak yu mel noonu mën na nekk ay privé yoo xam ne ñoo dem am seen ay tool di produire parce que am na loo xam ne boo ci bëggee dugal genre entreprise mel ne Sonaco di entreprise d'État dafay indi ay dépenses yoo xam ni dootu ko mën supporter te dafay compliqué comme que jamono bi nag léegi dañu naan chaîne de valeur seen de valeur ay segment yu emboîté maanaam yu yu yu duggante ñoo koy def boo bëggee nag nekk buur di bumi du sotti kon nag mën nañu contractualiser ñoo xam ne dañuy bay muy ci vallée bi muy feneen et dugal ci ñoom ñu jël risque ak ñun ñu def li ñu bëgg def waaye nag di bay kooku daal bokkul ci yaakaar naa li ñu sant. bokk bokku ci. bokkagu ci alors euh, li nga fi wax sànq muy contractualisé di leen jox euh, xëy na lu ñu bayee bu ñu bayee ba noppi jox leen Sonacos mën na caa gis boppam léegi baykat bi moom lan moo ciy nekk njariñam. maanaam contractualisation bi li li njëriñam mooy d'abord baykat bi e, dinañ ko jox semence bu sel parce que parce que parce que euh, li li tax ñu demoon ba capital semencier bi demoon ba nekk moins de six mille tonnes de semence certifiée privatisation boobu ñu def ci désordonné moo ko fi indi parce que avant Sonacos Sonagraine ci loxo nga xam ne mooy loxo Sonacos ci wàll woowu ay semence certifiée la daan joxe te boobu capital semencier bi demoon na ba plus de cent mille ton engrais bi aussi engrais bu sell bu jaar yoon moom la daan nekk ba nga xam ni Sonacos et dana mën a joxe ci semence yu jaar yoon xam nga kooku bu ko baykat bi amee mën na bañ mel nag xëy na gerte gi ñu am ren nga xam ne bari na waaye nag qualité ba des na hmm. ndax semence ya ak xëy na engrais ba xaw na des jiw bi waaw donc jiw bi bu ko bu ko baykat yi amee et loolu dañ leen mën dimbale ñu teel a bay teel a fàggandiku et baykat ku am jom la ku am fulla la ku am fayda la et eh, bu d'accord ak yow te na mu war demee mu demee ko la nga ko jox dana ko bu njëkk nag li tax loolu xawoon jafe mooy politique ak état yëpp dafa raxoon ci coopérative yi léegi nag coopérative yi am ak groupement yi ay nit jàmbur ñooy jóg seen bopp jël seen alal dugal taxawal seen coopérative ñoo ko moomal seen bopp donc li leen arrangé ca la ñuy dugg leen arrangé wul duñ ci dugg hmm. loolu nag euh, bu mën na permettre euh, kuréel bu mel ne Sonacos xëy na la muy soxla ci gerte xëy na au moins genn wàll gi fii ak ñaar ba ñetti at mu koy jëlee ci contractualisation boobu léegi la ca des mu dem sur le marché mu wuti ko voilà wala mën nag sax gën a gën a baax mais daal euh, dañu ni kuréel entreprise agro industrielle boo xam ne ci wàllu mbay la féete ak di di sopparñi euh, li mu li mu jëlee ci mbay mi su bëggee daal am ëllëg il faut que li nga xam ni moo koy doxal muy gerte et mu koy am fu mu toll parce que bu ko amatul dafa mel nit kooku nga xam ni amatul deret day anémie te anémie bu yàggee maar day taali voilà donc loolu noonu la euh, gerte maanaam mbirum approvisionnement mel ci entreprise agro industrielle jërëjëf euh, ñu ngi lay gërëm Youssou Diallo ci waxtaan wi am na solo euh, macha allah ñu bàyyi la xëy na nga tàggatoo rek. waaw waaw di la gërëm di la sant parce que. Euh, macha allah da nga may permettre yow souvent ma dem fu gën a xóot ci waxtaan bi te am na yoo xam ne xëy na euh, suñu classe gi ñoo ko léegi xaw a dese xam. et ak expérience bi ñoo am ci wàllu liggéey ci wàllu mbay mais aussi mu nekk aussi suñu bëgg-bëgg voilà ñu gis ci mën nañ ci di jàppale suñu réew liggéeyal suñu réew mais aussi jaamu ci yàlla donc euh, leeral yi nag dafay baax. surtout jamono bi nga xam ne dañ ci nekk muy jamono réforme ak jamono soppal ñu pour jëm kanam parce que réew li kay tax mu méngoog jamono mooy réforme réforme maanaam mooy nga jéem a fexe ba méngoog jamono loolu mooy réforme mooy méngoog jamono ci loolu lañu président wax woo mais lii tax nga raw say maas nag et da ngay am pexe yu bees yoo xam ni mooy tax nag nga mën leen raw pexe yu bees yooyu nag moom la wax léeg-léeg innovation Sonacos nag ci ñaari wàll yooyu muy ci wàllu méngoog jamono mooy li ñu président woo ci wàllu jëndum gerte ci wàllu plateforme exportation ak ci wàllu doxalin ak yenn kuréel yi beneen bi nag mooy seet nu Sonacos di diversifier maanaam gën a maanaam yaatal mm. ba nga xam ni risques yi en fait dootul bare aussi ci wàllu gouvernance maanaam yorin parce que alalu buur moom alalu ñëpp la waaw moo tax Sonacos du n'importe quelle entreprise donc dërëm booy jël di ko dugal fenn war nga xam ni dërëmu 17 à 18 millions sénégalais yi en fait moom nga yor et ci loolu la ñu président di Macky Sall di soññ ñun ñi nga xam ni ñun la teg ñu nekkal ko fi ay ndawam et ci conseil d'administration bi ci loolu lañ taxawee aussi gis nañu directeur général macha allah mu ngi taxaw ci lool donc euh, yal nañu dimbale et gën a dimbale Sénégal ci wàllu mbay macha allah nawet bu gën gën a ñëw gën a baax euh, ba ca ba ca ca topp nit ñi gën a góor lu taxam ne aussi euh, lu jaadu daal moo gën lu jéggi dayo hmm. parce que lu jéggi dayoo dafay indi ëllëg jafe-jafe. moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi muy définir. Euh, lislaam ci alxuraan ummatun wasatan la wax maanaam mbooloo mu diggu dóomu voilà donc euh, kooku aussi nañ koy bàyyi xel daal mm-hmm. euh, maanaam daal bëggee wala yooyu léeg mën na sànq nit daal ah. voilà voilà lekk dërëm dërëm at at yu bare moo gën lekk ñaari dërëm yoo xam ne dootoo lekkati mujj gi suuf ngay lekk. jaaree kooku yal nañ ci yàlla musal <laughs> voilà jërëjëf jërëjëf merci. jërëjëf Diallo Youssou Diallo la ñu doon dalal euh, mbokk yi ci euh, démb ak tey ñu doon waxtaanee wàllum gerte campagne yi nañu ko daan doxalee ni muy doxee ren ak surtout ni nu bëgg euh, muy doxee ngir Sonacos gën caa mën a gis boppam réew mi itam gën a mën a yëg boppam ci wàllum dëwlin ndax gerte ak dëwlin ni mu ko waxee ñoo ñoo ñoo ànd lëkkaloo mu nekkoon conseiller technique ci ministère de te itam euh, club Sénégal émergent ndax gerte ci Sénégal euh, mooy tekki rek koom-koom ni mu ko waxee réew mi lu ci ëpp euh, ci tànkam en tout cas bi ci gën a dëgër ci wàllu mbay gerte la ñu gërëm leen ci déglu bi gërëm jaawa jàllo mi ne woon ci wàllu machine bi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen waxtaan wi mën ngeen ko teewluwaat ci réew mi officiel mooy suñu page ci YouTube jërë ngeen jëf